sëriñ baara aminatolo Moustapha aminatolo waaw ku sopp bàyyi sëriñ Sidil Muxtaar jógal taxaw ñu màggal sëriñ baara sëriñ baara faj aajo moo ci gaaw lu mu wax boroomam mu ni day fal di fali ci lu gaaw mat naa ragal ci baara day wayte jàngulan araf sëriñ baara te da xam du ca surub moo man arab te man na mboolem xarnu bi sëriñ baara sëriñ baara sëriñ baara sëriñ baara sëriñ baara sëriñ baara sëriñ baara Aminata Lo sëriñ baara baayu Cheikh Abdoul Khadim baayu Serigne Cheikh Mati lay Mbacké ku sopp Serigne Bara defal ni ñu màggal borom kër Ngana Mam Cheikh Anta borom gaawaan ku doon saayir wara ñedd baatin saayir balaa mën a taxaw am baatin maam Cheikh Anta borom daaru kuy rabbu day xiifa kamar mbaa guddee mbaa du fetel luñ taamu jaraama maam Cheikh Anta ku sopp borom daaru salaam taxaw ñu màggal jaaraama maam Cheikh Anta jaaraama maam Cheikh Anta yaa Bamba yaa taaru yaa tabe te yonen ba yaa njëkk a fab sa seenu askan jëbal Sëriñ Tuuba lu kenn lakar fadlu yaa muxtaaru ana soppay alaaji fallilu alayka salaamullaay yaa man ma azulaaw ju am jom ju jàmbaare ju nangoo liggéey ju weeg boppam ba looloo waral bi mu jógee ànd ceeg jigéen ñu gëm seen bopp nangoo liggéey am jom am détermination ñu mën somb li di ci am réussite yal na yàlla barkeel la leen di nuyu seen conférencier bi fa seeni waxtaan ak yéen léegi nga xam ne maamam dafa am cër bu wér ci ki ngeen Mbaye Ndiaye Ngom yàlla nag nee na ki jën ci yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale te moom fii dëkk jàng alxuraan wëlbatiku di ko jàngale yàlla yàlla gudda sa fan kon yow yaa moom cër bi conférence bi ñu la jox du la jaaxal te di nga defal thème bi di bu baax sunu mag di nit ku baax nag xale yu bari mu jàngal leen xasaay di tette leen ci muy sëñ Mor sàmba Diop mi Alaaji Mor Massamba daf ma wax lu daw sama yaram bi ma ko ziyaar jee bi mu jógee màkk mu ni ma Momadou man gisatuma lenn lu may mettali ndegam yëkkati naa xasaayit ci kanamu rasulillah defe naa loolu nga ma wax de nga ne ma gisatuma lu may lu may xañ mu naqari ma ndax xasaay sëriñ Bamba li ma yàgg a bëgg yëkkati naa ko fa waaye kër bi ma ko yëkkatee ci kanamu rasulillah dara metteetu ma muy wax bu ma dugg nag yal na yàlla gudd sa fan nga yiir xale yëpp nag teete leen ci ñoom aatuñu ñi ñëpp di say doom foo leen fekk doxalal leen yaatalal leen yàlla yàlla dolli sa jàmm di nuyu grand sëriñ de Thiès Baye Cheikh Mbay di satu sunu maam tafsir biram Gambi nga xam ni la macha allah la Seydi Aji yi wax ci sa maam bi nga màggee yaa ngi koy gindiku di ko téye. di nuyu bu baax nag ki nga xam ne tey moo yombalal soxnaam coordination ba mën ci am réussite ndax bu ko bàyyiwul woon amaana lii du mën a ne muy jibi gay mële nga xam ne jàppale na soxna Ndey Njaay lool taxawu ko lool ci laa jëm si woon ndax luñ Ndey Njaay am am am am bëgg-bëgg bu ko borom këram bàyyiwul woon du mën a ne te jibi amul benn problème àdduna moom yàllaa ñu boole ndax moo samay maga daan ànd man bët boobu laa koy xool yàlla na yàlla dolli sa jàmm di nuyu nag sama jigéenu bopp di doom ci kër sëñ Ablaye yàq mi bërki dem boo jaay 500 kit la séddale këram chargé de mobilisation ba chargé de mission Macky Sall bu ko nuyu woon ci turam lay jaar ndax xam détermination muy faat karatiab mi toog sopp sëriñ Saali bu wér di ko am njariñ di ko fonk fi mu juddoo fi mu dëkk loo am bokkook ñoom te boole dara ak wax yal na yàlla dolli sa jàmm ak madame Diop mii nga xam ni bi ma koy annoncé xaw ma ko waaye ngeen seede ci moom lu bari mu ñëw tey wuy si leen dagg lépp yal na yàlla dolli jàmmam maa ngi nuyu ñëpp waaye nag dafa am ku ma àndal te ki ma àndal sax du tey la njëkk ci yéen ñëw na fi ndokk ba nga tuddee Sëriñ Bamba xaadim borom nit ñi balay subir sëriñ mbàkkeek maaram góor gi dem gabon dem numéro jaar bu timeek daaw me kàbbari géej gi ti saar fay lépp bind xasaayit sept tonnes garantil ñu àjjana seexal seex yi te kenn merut jéggalaati noonam sëriñ bamba lañ la dippee muy kan xaadim saaxo boo amee ci sëriñ kër ci sëriñ Touba yell na lu sa maam yi am daaru salaam lañ ko yóbbu dem ba daaru sa maam bi sëriñ Bamba ñëwee fii tubaab bi ànd ak moom ganale ko essence mu wow fii maam Alaaji Ahmad Baru Njëgeen bi mu ñëwee sa maam laax ba mu añee keroog ñoo ko togg am nga cër ci réew mi de loolay dox loolay dox ba yàlla boole la ak président de la république cinq tonnes nga wàcc ci dëkk bi ki suba ba léegi maa ngi séddale damaa toqi juróomi tonnes tey bi nga ko wàccee ci say mbokk nga ko njëkke njëkke ko sa koñ dajal ñëpp wëlbati ko jox ma tiblim ni ma joxal ma sax communicateur yi Baye Cheikh grand sëriñ seen wàll nga fa lii la njëkk a def conférence lañ jóge nii la ko oto bi wàccee conférence la ñuy demaat noonu la ko oto bi wàccee conférence la ñu nekk nii fi la ko wàcce muy xaadim Sakho di président mouvement bu rëy boobu doomu nday président Macky sàll di ko jàppale du ko taxawul te ànd ak laam ak ki nga xamante ne mooy Amadou Sall ak caam mi nga xamante ne mooy caamu président Macky Sall ak ki nga xamante ne mooy Amadou Sall bu première dame première dame du Sénégal tabarkalla macha allah bu déwénee biyee mag yi ñëw de. xaadim a ngi leen di nuyu mi ngi leen sant doomu dëkk bi la soxna Ndeye Ndiaye fii la juddoo. fi la yaroo fi la màgge fi la jànge bi ko yàlla mayee teraanga dani ma jóob nanu maa bokk ak kenn teraanga ji du dul jigéeni Cees ak doomi Cees looloo waral mu ni ma conférence bi ma jëm li may njëkk a def jigéen ñi xam naa ni dañuy togg seen i kër dama leen may ceeb ba pare soo ko ñëw ñoom ci enveloppe bi ma leen di jox loolu la président Khadim jox ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax moo ngi nii toog waaye bi muy ñëw nag dafa ànd ak ku baax bala nga koo xam fekk ko du bàyyi waaw Baara Samb mi sénégalais bu jàq Dubaay dimbali na la ku doomi buur yi di nuyu di la jox ñaari loxo fu ñu la seen respecté la yàlla may la teraanga nga noon koo tiitaroo wël ku wëleef di taalibi gis sëriñ Baara ñu la tuddee mu ngi nii toog ama dembe bi ci naar yàlla yàlla dolli sa jàmm ngay nit ku baax nag bu màggal jotee da ngay vider sa compte bancaire doo fa ba dërëm jébbal lépp sëriñ Bamba te ku la fekk du bàyyi teral ko yal na yàlla dolli sa jàmm nga bëgg xaadim nag di ànd ak moom lu baax lu ne nga koy def ci diine di ko def ci yoon wi ànd ak rakkam soxna Faat Saaxo bokk ak xaadim ndey ak baay te yàqul dara ak ama jamale nga xam ne mook xaadima àndoon ca ba ñuy gone xaadima ngi leen sant mu ngi leen di gërëm soxna Ndey Njaay xaadim dafa kontaan ci cër bii ngeen ko cëral nee na moom ak yéen te bu laa yàgg dara dina ñëwaat ci yéen te buy ñëw ci yéen di ngeen xam ni muy ñëwee waat ci yéen lu leen naqari woon dana faju bu dee ay groupement yu ngeen dafa am loo xam ne daf koo xaw a yeex a fare nopp waaye incha allahu rabbi bu déwénee bu ngeen dee conférence dina leen may biyee màkk ngeen xool ku leen neex mu dem ci léegi nag bi ñuy ñëw ci yoon bi leer na mu nuri mi kilifa gu mag daf ko woo am ku nuy xaar ñu war koo am ci lu ñu dem jàppale ko ca loolu nekkoon fii la ñuy yendu toog ak yéen waaye nee na mi ngi nuyu conférencier bu bu baax sëñ bay Ndiaye di ko sant ndax weeru koor bu jotee lii la ci yàlla dégle ngeen toog di tafsir alxuraan di jàngalante loolay conférencier léegi rek du leneen ñi ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp waaye maa ngi nuyu nag Thérèse Ndiaye. di nag bëgg ay ndeyam bëgg ay tàntaam bëgg ay magam am na noo doon mel kenn du la jox carte kenn du ñëw ci yow waaye danga bëgg ñépp boole ñëpp faale ñëpp moo waral suñu carte bi ñëw ba ci yow taxam xam ne nag ñoo la jur di sant ma dem Diop mii. di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla taxawu ndax bëgg dafa metti ki bëgg rek la sonal waaye ki bañ noppal na la maa ngi ñaanal mbooloo mépp di ñaanal nag xaadim saaxo mii nga xam ne nag coow li coow li la ndax xaadim day nekk Dakar ñu di ko woo téléphone lu nu ko demandé mu jox nu ko lu ma ko woo ko xaadim saaxo lii la nu bëgg mu yónnee nu ko li ko monsieur Diop ni ko sa turandoo nga nuru waaye fukki dëgg la turandoom la duppi turandoom la jël lu muy def rek mi ngi koy def ci diggante social di ko def ci diggante jàppale doomu aadama yi di jàppale jigéen ñi may ñaanal xaadim saaxo nag lu mu man ren yal na ko man déwén li mu fi indi yal na ko sa borom fulal maa ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal mbooloo mi di ko ñaanal ñëpp di ko sant sant gu am commencement waaye amutub àpp xaadim saaxu jigéen ñëpp kontaan nañ ci yow ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm di sant suñu ustaas yi toog di sant sëñ Mbay Njaay di sant Baay Seex di sant Sëriñ Ngañ ñeen ñëpp ñoo ngi leen di sant ndax dérangement dafa jafe kenn ku ne boo jógee bëgg a toog ci ci tànt di di di waxtaan ak mbooloo mi ak Mor Masamba mii ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm te xam ni kenn ku ne am nga yitte boo war a mën a doxi ak sëñ moor ba bii nga xam ni dañoo indil teraanga joo xam ne daf ko jële ca soxna Saybata ñëw ni damaa bëgg ngeen suukar ko ci ku ci naan rek sa aajo faju ku ci naan tey jii rek sa aajo dina faju ci li soxna Saybata yónnee kon ñoo ngi ñaan ci borom bi yal nañ sama borom yeggaleel ñu koy def ay ati ati ati at di ko def fii nag xaadim saaxo dañu fi fekk. ci njabootu Cheikh Abdoulaye Yakhine. ne kon bu toogee fii nag. te seedewu ko. ne kon war nañ koo xoolaat bu baax. bu leen soxlaa. ne bu leen soxlaa. ngeen teew. ne ngeen ànd. te la mu leen waxoon démb. nee te la mu leen waxoon démb. te du mës a deñ. du mës a deñ. xam naa day yéex rek. nee day yéex rek. waaye tabarkàlla kanam rek la jëm. maanaam du yàgg dara. te balaa yàgg dara du mat ay weer. mat ay weer. nee lu dul ci lu dul mat ay weer. dinañu gis li may wax. di nga leen fekkaat fii lii ma seede léegi ci moom wax leen ko muy digg leen jox mu indi leen lépp teg ko seen loxo. firndeel nañ ma loolu. nee na ndax li ko waral wóolu na leen firndeen ngeen ko loolu wan ngeen ko Pastef wan ko confiance bu tax mu doyloo leen ba tabarkaala du ci rëccu dara. ba ma toogee kilifa gi. nee bi mu toogee kilifa gi di son excellence. demal Thiès. nee def ko ni demal ma Thiès. yëngu si wàllu social. yëngul ma ci wàllu social. ndax ba leen ko waxee ñoom ñii. nee te bi mu leen ko waxee yéen ñii. def na diir la. nee def na diir nag. nee na diir boobu rek. dafa yéex rek ne dafa xaw a yéex rek waaye lépp dina yegg si bu soobee yàlla. Ah, waxtaan nañ waxtaanu biir la. ne waxtaan naa ak moom nag waxtaanu biir. foog naa ne te foog na ni. lépp dina sotti. lépp dina sotti incha allah. te du ma lekk dara bàyyi leen. te bu soobee yàlla du lekk dara bàyyi leen. biyee màkk yi la. ne biyee màkk yi nag. moo ko woon noonu. ne dafa am nu mu demee rek looloo tax egsiwul. waaye incha allah bu déwénee da ngeen taxaw fii tiire seen billet ku leen neex mu dem ci daraja yi Muhammadu Rasulillah ne ngeen ànd jàppale yéen ñëpp di àndandoo jàppale son excellence président de la république nee na ñu ànd liggéey lépp lu seen cër ci social ngeen jot ko nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di santaat bu baax ñi mu fi fekk di santaat mbooloo yi mu fi fekk ak délégation bi mu àndal gërëm waaye di sant président bu baax di sant doomu ndeyam caam ak kii nga xam ni moo ko gunge tey di ki nga xamante ne mooy Serigne Baara sàmb ak mbooleem koo xamante ne yaa délégation ne di sant nag xaaritam koo xam ne kenn la ci moom muy Amadou Sall di doomu président de la république di doomu ndey Mounirou mii loolu may wax Fatou Karam Thiam mii am na lum ci xam tabarkàlla macha allah mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na yàlla dolli jàmm jërë ngeen jëf. ndax lii nga nu defal tey jii danga noo bett mbett moo xam ne sax mbett mi ñun fooguñu ko xalaatuñu ko woon. indil nga nu ceeb bu doy sëkk. ni waa kër sëñ Ablaye yàq nañu ci ceebu indil ñu xaalis bu weex tàll ni dama bëgg na ngeen def ko ci seen conférence bii ndax xam naa ni conférence ku ko def rek xam nga ni métti na ndax dañuy wut ay base dañuy wut lépp waaye da nga cee jàpp ba mu baax saako ñoo ngi lay ñaanal la yàlla jàppale yàlla taxaw la lépp loo fii la commencé sama baas fii la commencé lépp lu ma njëkk def si wàllu politique fii laa ko commencé ma ànd ñoom te te dama cont dama dama fas yéene continuer di ànd ak ñoom parce que lu si kanam raw lu ebar parce que dafa am lu ma leen waxoon te li ma leen waxoon loolu maa ngi siy liggéey ah euh, l'avenir est devant nous kon yàlla nañu yàlla jàppale ba sama yéene àgg si ñoom